dëggantaan la ñu am nag ci bile dogal waaye nag du tere xeex bi moom daañu di fësal ci xëtam bu njëkk ne daan yu mitti kay la ñu daal di gàll ci ndoddub ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ndax neenal nañu nag dogal yi nga xam ne moom la Sabassy Faye jëloon ba noppi dàq mbir yi indi ko fii ci Ndakaaru cour bu Abidjan itam daal di dëggal nag tas gi ñu tas parti bi nga xam ne moo di Pastef bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi les échos yéenekaay ni Sonko kay ñetti yoon la nërmeelu ci bés bi ndax lajju na ca kanamu cour de justice bu CEDEAO lajju ci kanamu cour suprême dem ba noppi nag laju ci lu jëm ci wàllu mobilisation ndax nag njàqare gi nga xam ne askan wi doon nañ ko am ngir xalaat réew mi tàkk dara amu ca furaas na xëddee na enquête ni jeexagul de diggante Ousmane Sonko ak nguuru Sénégal njawang cey wéy di de sub xam bi ndax Cour suprême neenal na àtte bi woon ca Ziguinchor te faw rek ñu daal di koo àttewaat Vox Populi na leeragul de bokkaatam ci yooyee liste électorale nag faaw des ko xoolaat ci yéenekaay bi nag Saïd Larifour kenn ci avocat yi nga xam ne mooy layool njiital nag lii moom métti na lool ci suñu kaw waaye nag faaw ñu xam ne xeex bi dañu koy wéyal dee duñu ko dakkal benn yoon jeexagut ñaari naqar ci kaw Ousmane Sonko lii la Le Quotidien yéenekaay bi moo xëy daal di koo xamle ni neenal nañu nag dogal bi nga xam ne moo bawoo ci àtteb juge si fay ba noppi jël àtte bi fas yéene ko indi fii ci Ndakaaru source a na jongante la woon ci diggante nguruk senegal ak Ousmane Sonko waaye fi mu toll nii nag nguruk Sénégal dóor na Ousmane Sonko ñaari bal ci dara L'Observateur na fi mu toll nii kay moom Ousmane Sonko mi ngi ci guddi gu bët setagul ndax nag ñaari yool yu diis la ñu gàll ci ndoddam uh, tukkee ci àttekat yi tribune yéenekaay fësal ci xëtam bu njëkk ne cour suprême kastu maanaam rajaxe na lépp ba noppi nag teg ci ne li xeeñ neexul benn yoon ci Ousmane Sonko ñeel bokkam ci élection présidentielle yu 2024 yi ndax lu ñuy gën di jege mbir yi di gën di métti ci moom maître El Hadj Diouf di xamle ci biir yéenekaay bi ne am na ñu ndam ca Abuja am na ñu ndam ci Ndakaaru ba noppi neenal dogal gi nga xam ne moom la juge Sabassy Faye jëloon kon nag wax amatul bés bi le jour na jongante bu ñuy nar a tëggaat kay lay bi jeexagul ci diggante Ousmane Sonko ak nguruk Sénégal laas yéenekaay ne lii kay miracle dëgg la ci dossier Ousmane Sonko bi ci kanamu Cour suprême yéenekaay bii di Sud Quotidien ne yëf yi kay métti na métti na lool rawote na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ci diwaan bu Ziguinchor mer bay futt la ñu def jamono ji Walf Quotidien ne fi mu toll nii kay laju na ñaari yoon moom Ousmane Sonko njiital Pastef bi woon ñu des ci mbirum yoon wax rek ci yéenekaay bi di Libération moom nag xëy xamal boo xam rek am na ko moom oustaz Oumar Sall ak Pape Sané ñoom ñaar ñooñee passé week-end bi ci garde à vue yëglekaay bi di l'observateur dellu siwaat ci kàddu yi président de la république Macky Sall muy xam ne ni ñi nga xam ne dañuy xalaata taal réew mi mbaa ñu fi indi lu dul jàmm nañu yem nañu yem de loole rek laa leen di wax ndax nag fii dara du fi xew la soleil yéenekaay nag di ko feelu ne ah kay kàddu yooyee la yëkkati moom président de la république Macky Sall ca ba muy rek fësal lu toll ci 853 milliards yi nga xam ne moom la fas yéene jébbal duwaanu Fatick ngir ñu daal di ko suqali ci lépp loo xamante ni rek moo di bëgg-bëggu